Euh, waaw gars yi maa leen di gërëm ci euh, leen sant bu baax a baax a baax euh, match bi neex na lool nda jeu am na gis nañ ne booy ku nekk joxe na ni nga li nga moom li nga am comme donc li ñuy wax rek mooy comme ni ma ko waxoon contre match passé contre Diass moom laay waxaat tey match bu ne ak ni ma ko war a footballé sama équipe wóolu naa ko donc man yor naa équipe boo xam ne jeune bi ñu ko fi yor bëriwul donc man damay entraîné 24 heures sur 24 nawetaan taxuma entraîné comme donc FC Baye Gaynde benn FC boo xam ne la dañuy construire di defar. Euh, comme donc boo ma ñëwee man niil tey euh, damay xam ne marché bu ne am na ma ko war a footballé mais donc dama leen di xamal ne terrain yi dañoo ndaw ci suñu ci suñu qualité football dañoo ndaw boo xoolee man centre ma fi yor kenn yoroo leen fi comme donc bu ma ñëwee terrain bu ndaw dama souvent dama am problème pour mën a génne sama bal te boo xoolee sama milieu terrain premier mi-temps tax doxul mooy milieu terrain bi dafa xat pour bool bi mën a ubbi pour génne laajte bale loolu moo amul moo tax deuxième mi-temps ma demee noonu mais donc fa nekkee ci match bi foofu la arbitre tasé match bi comme donc ñun lu ñuy fubal ci temps dafa ndaw 35 arrangé ñu ngi koy fubal te ñu lu ñuy entraîné ëpp na loolu. comme loolu il faut waa zone bàyyi ci xel bu baax a baax jéem a yokku temps bi bu dee ñu équipe yi ñooy teel a ñëw ñu ñëw mais bu dee équipe yi dañuy teel a ñëw ba pare ñuy ñuy gàttal temps xoolal temps bi fii ba timis xam bi décalage am na dañuy yokkal ñu temps bi incha allah ñu bu ñu yokkalee temps bi dañ ko gën a gis dinañ xamal ne nag match bu ne ak ni ma biir poule bi ba léegi participer pour l'année moom yàlla def na am naa 4 points tey euh, kaan in jeexal na am na 7 points te man dese deux matchs man maa ngi ci biir biir poule boole te incha allah pay laa a ma wax sànq rek Baye Gaynde nekkul boo xam ne day xaar day xaar ba 3 mois nawetaan mu soog a entraîné na Baye boo xam ne boo xoolee ñun depuis nawetaan bi passé ba léegi Baye Gaynde lay fubal nawetaan ñëw mu fubal Baye Gaynde bu mu dégg day dem boo xoolee jël naa benn trophée tournoi. Jungaan Kisane laa dajale maa ko gagné comme ne Baye Gaynde préparation match euh, lenn kese la mooy physique dañuy physique physique bu baax pare booy di noppalu mais boo xoolee sama heure entraînement man quatre heures laay entraîné comme bu ma fi ñëwee di football ay cinq heures di football ay ne Baye Gaynde du équipe boo xam ne day ñëw nit jaar ci kawam jàll loolu yomb fi comme yaa ngi fi te maa ngi fi di nga gis li ma lay di la xamal ne euh, match bu ne ak ni ma ko war a footballé tey dama ah, nangu na maa ngi ñaan yàlla nag match bi di ñëw yàlla may ma victoire